dal leen ak jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a la raw gannaaw daal gi nga xam ne daal na ko ci kii di Ousmane Sonko moom Idrissa Seck bàyyiwul dara ki nga xam ne moo moom nag lam indil Guy Marius Sagna moo di ni ko li nga xam moo di lu jëm ci France dégage yi ngeen ci euh, bëgg a euh, instauré na ngeen xam loolu du loo xam ne moo mën a dox ndaxte xamal ni Sonatel gi nga xam moom nga bëgg ñu jóge si ñoom nga bëgg ñu dégagé wu xamal ni cent personnes yoo xam te ni moom moo leen fay mu di ay nit yu ñuul yoo xam te ni ci Sénégal gii leen dëkk du ay tubaab du leneen naka noonu lu ma mat 300 million cent milliards de francs CFA chaque weer moom orange mu di ko fay te it ni koy fay du ñenn ñu dul ay sénégalais yoo xam ni fii la nekk fii la samp seenu tànk naka noonu xamal ni ba tey yi 27 pour cent ci loolu état da ko cee am ci li nga xam te ne moo di ci Sonatel kon leneen léeg impôts yi gee jaayu loolu lépp kon état mi ngi ciy gagné lu bëree bëri naka noonu na nga xam ni 42 pour cent kese la tubaab bi moomee. kon loolu noonu kon kii di Guy Marius Sagna faaw kon mu xam ko loolee la kii di Idrissa Seck daal di xamle ci ni kat ñoom ñu fu fu ñu bëgg a jëmee Sénégal ndaxte ñoom ñi nga xam te ñoo di Sonatel ak ñi nga ki ni jamono yi kii di Cheikh Tidiane ñoom ñoo fexe ba euh, instauré li nga xam moo di Sonatel ca fële ca Mali ca Guinée ca Côte d'Ivoire ca Sierra ak yeneen ci ay dëkk yoo xam te ne lii jamono yi ma ngi koy bomb te loolee lépp ay Sénégalais sax ñoo ko fa def ñoo ko instauré kon na xam ni yooyu ñuy wax ay bêtises la moom sa Seck loolee la xam ne ci ni kat ñii kenn waratu leen jox sax micro bi ñuy euh, jël ay kàddu di ko wax journaliste loolee la xam xamal sax journaliste yi ci naa leen wala boog sax dernière la li nga xam ne moom la ci xam moo di ñuy seggoon seeni kàddu di jël la nga xam ne moo am sens ñu di ko publier la amul sens bu boobaa ñu bañ koo publier.